contradiction mais boo xoolee dans le fond malgré certaines bisbilles c'est des alliés naturels justement <laughs> du, du régime en place mooy euh, ñi ñi mooy Khalifa Sall ci la bokk malgré bis bi mooy Déthié Fall parce que moom élection moo taxal mu dem te loolu ñoom ñoo ko dégg woon mm. moo moo moo moo di kii nga xam ne tamit moo di Malick Gakou donc booy xool daal le ñoom ñëpp ils sont pratiquement si kii euh, c'est des alliés naturels de du président Bassirou Diomaye Faye. alors soo ma ko permettre euh, Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. Euh, taxawaayu opposition bi lan la leen di inspirer yéen yéen ñi nekk ci jamono ji ci pouvoir bi. waaw man dama dama bëgg nga may ma. ma jàkkaarloog caméra bi wax ak sama mbokk. caméra bi kay jàkkaarloog moom waxal soo paree ma jox jëwriñ après ma dañ sëñ Modou moom tey. li tax ma ma sàkk ko. acca. mooy dama am yéene wax ak patriote yi. ci lan. ci comportement bi ñu war a am jamono ji. envers qui. man maa ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Fall nekk un cadre du parti. Mmh. nekk un formateur à l'école du parti Daara Cheikh Anta Diop depuis 2018 diaspora bi ñu ci ëpp maa leen formé. muy hmm. bëgg a wax ak suma mbokk patriote yi dañoo jóge fu sori daj lu metti xeex lu metti ay bakkan daanu ñii seen cër ñu dagg ñii seen liggéey yàqu ñii ñu tëj leen. ndax projet bi foofu ñu jóge bu doon xeex jàppoon nañu ci xeex bi dem nañ ba jëmmi jamono ñàkkoon nañu espoir yàlla sunu borom rek moo ñu dimbali ak gëm-gëm bu la président Ousmane ko am ak xolam bu yaatu ba tax tey jii sunu projet mën a yegg fi mu yegg si ñu xeex ci nag daj ci lu ne waaye dañoo toll foo xam ne fa ñu tolloon bi makki Sall dañu persécuté fii ñu toll moo ko gën a sensible mooy dañoo xeex ba téye trophée te bu ñu xoolee trophée bi ci ay wax dinañ ko jox ñeneen mooy lan mooy ñii ñuy tudd te bëgguma leen tudd. Hmm. dama bëgg ñun patriote ñu xam ne ñun ñoo am doole communication ñun ñoo am doole. boo xam ne tey jii ku ñu bëgg Sénégal dégg la Sénégal dégg la. sujet bu ñu bëgg ñu waxtaanee la Sénégal di waxtaanee ndax ñun ñoo ko am sur le plan digital ñoo ko am sur le plan ci terrain bi waaye ndax loolu ñun ñu xeex ba téye ko war a focus ci essentiel ndax dafay am ñeneen ñoo xam ne amuñu pois amuñu xam-xam bi amuñu doole ji ndax ñun dañuy bàyyi ñooñu sukkandiku ci ñun ngir mën a fësal seen bopp may wax ne. ñii fi ne ñun doole ñu am nañ ko focus ci fësal li gouvernement bi di liggéey te bu leen may opportunité bu ñu sukkandikoo ci ñun ngir mën a créer wu yéen da xam nga ni amul kenn kenn ku am poids bi ñu am waaye képp koo xam ne ñu ngi lay tudd di tudd suñu bër xamal ne ñoo la ko may parce que boo waxee ñoo koy partagé boo dugalee ñooy commentaire ñoo lay taf ci suñu ay page ñoo lay waxtaanee. waxtaan boobu nag buñ ko may kenn ndax dañoo am gouvernement bu jàmbaar dañoo am ñoo xam dañoo tëdd tey ci biir suuf te yëf yi ndam daa war a am ndam loolu ngir mu am jàpp leen ni quatre pour cent li indi ndam di communication la mooy dañuy fësal li gouvernement bi di liggéey buñ ci yem képp koo xam ne ñëw ngir utiliser suñu doole ndax ñaare sax nit ñi ni ñuy def moom dans le showbiz bu ma xamee ne artiste bi ma nga ca kaw te jotuma fa dama koy tudd ngir ñu may tudd di ko tudd waaye nag ñun patriotes yi waruñoo jël suñu doolee séddee ko ñi nga xam ne tey jii bañ a xeex xeexuñu bu nu sañoon ñu tëj ñu bu ñu sañoon tëj duñ fi toog ñu bëgg leen a may li nga xam ne mooy suñu visibilité. kon daal may sàkku ignorance ngay ci. may sàkku ci patriotes yi. d'accord may sàkku damay ñaan en tant que un en tant que quelqu'un koo xam ne duñ ne am nañ ay blessures ndax waxtu wii may wax ak yow. ca Grand Théâtre sunu martyrs yi ñu ngi leen di màggal sunuy rangoñ feregul blessures yu wëragul donc war ñoo may keneen foo xam ne dina jekkuwaat paaka bu mu ñu jame lenn nag buñ ko moytuwul moo ñuy dal lan moo ñu di xeex ba téye xeej bi jox ko keneen mu jam ñu Sénégal daf ñuy xaar daf ñuy yónni yàkkamte ñu président Sonko gaynde la gor la jàmbaar la président Diomaye gay la gor gaynde la gor la jàmbaar la gouvernement bi ñëpp ngi liggéey waaye dafa am lu luñ soxla luñ soxla mooy dañoo soxla concentration patriote yi. Hmm. xeex ba téye nen mu leneen nen a ngi nii da nga ko war a séddale ñëpp ñam ci ñuy jël nen boobu di xool loo xam ne tey ji moom moo koy toj wala di ko jox koo xam ne tey ji mën na ko toj loolu ëpp naa def. d'accord ba tax na maa ngi leen di woo patriote yi nañu gën a laxasaayu xam ne sunu xeex a ngi soog a tàmbali. 60 ans d'indépendance ñu nekkoon ci buumu jàmm yàlla dimbali ñu dog nu ko dog boobu nag li tax mu yegg mooy dafa laaj concentration donc ñun patriote nañu am maximum de concentration ci suñu gouvernement ci li muy liggéey ci li muy dox ci li muy wax di ko fësal bu ñu may kenn opportunité boo xam ne ci suñu page Facebook suñuy TikTok ak ci suñuy wax bu ñu may kenn koo xam ne dinañ la tudd di tudd suñu mbër ndax su boobaakat kat ñu ñoo yablu suñu mbër. d'accord merci jaajëf euh, jëwriñ Ndiassé maa ngi doon wax wàllu opposition bi taxawaayam ak gouvernement bi donc lan la jaajëf Serigne Ahmadou Bamba Fall jaajëf Abdoulaye Mbow jërëjëf jëwriñ ñëwal bisimilah ma dem ci Serigne Modou Assou Mbacké. opposition bi moom ku ci. taxawaayam lan la war a nekk jamono ji. ci gàttal taxawaayam bon xam nga opposition rek ça veut tout dire. Mhm. <laughs> baat bi rek ça veut tout dire. Mhm. tu vois. mooy ah, dafa war di opposé. ci logique la quoi. mais tamit euh, boo nitee trop da nga war a xool naka ngay opposé quoi. Mhm. waaw boo nitee trop da nga war a xool naka ngay opposé. Mhm. tu donc euh, ñii jamono yi mu toll nii euh, fi ñu toll nii dëgg-dëgg ji bi ci jamonoy liggéey lañ tollu ko mhm. waaw liggéey lañ toll ko Mhm. ñu dañ leen war a bàyyi ñu liggéey ba ci kanam. Mhm. may leen au moins benn un an wala benn deux ans. Mhm. tiwa vois euh, nga doog a mën a xam nga bu ñu démarqué ngay doog a xam ban jeu la ñuy joué quoi. mais fi mu toll nii booy opposé wu ci lan ngay opposé wu. Hmm? xam naa doo nekk opposition pour opposition rek di wax pour wax. mais balaa ngay wax da ngaa war a xam li ngay wax lan la ak li ngay wax boo ko waxee pare lan lay jariñ quoi Mm-hmm. donc euh, pour man daal li ma leen di conseillé mooy nañu nañu nañu tey daal nañu tey bàyyi euh, bàyyi ñii ñu liggéey ba ci kanam d'accord waxtu yi liggéey lañu toll quoi <laughs> waxtu liggéey lañ toll nekkuñ ci waxtu yi opposé wu quoi d'accord oui alors Serigne Mouna Mbacke <laughs> bi mooy dernier tour table bi mooy ci wàllu euh, configuration actuelle bu bu politique gu Sénégal taxawaayu l'opposition bi lan la donte ne ku nekk ngi woote par ci par là mooy Bougane def na réaction am euh, yaa Thierno Bocoum qui annonce demain incha allah euh, sorti tout comme l'Alliance pour la République entre autres donc lan mooy taxawaayu l'opposition actuelle en tant que chroniqueur. waaw xam naa Thierno Bocoum moom xamoon naa ne dina génnaat ndax génn bee moom daa baaxoon ci moom. daa baaxoon ci moom. lool. Hmm. da ko dundalaat ah, waaw waaw da ko dundalaat ndax yow boo xamee ne yow nekk nga cim réew loolu fukki at yuy politique te sorte boo mas a def ñi siifur politique dëgg dëgg dëgg ak ñi siifur li ñuy wax débat hmm. politique dëgg dëgg dëgg ñu yëg ne wax nga hmm. te ñu gën a bari ñoom sax du leen itteel waaye nga wax mu dem fépp ci àdduna bi hmm. te loolu nag gaa yi naan fi nga wokk foofu xasan delloo fa sa loxo <laughs> maanaam dafa gis buggaan génn topp Macky Sall xam nga Macky Sall na ko ku intelligence la kooku ak ak ak waa APR. Hmm. waaw. ci bi daan Bougane bi muy tukki Bougane naan ko tibb tànk terewu ko dara fu mu jaar Macky ga Bougane jaar terewu ko dara daa lay xam ne Bougane moom du siiwul mënu ko yàqal dara waaye bi Sonko damay def nemee ko tuur mayuñ ko sax mu génn sowal parce ba xam nañ ne kii mooy adversaire bi. Hmm. léegi bi Bougane génnee. gaa yi def ko adversaire te du adversaire te mu amaale ci bëj ah Thierno bokkum na pourquoi man tam du ma def ne moom te def na ko bii jàll mu neex parce que ñëpp nga koy waxtaan a amoon Abdoulaye Wade moo ne ko politique maanaam fexeel nekk ci débat public bi xaw moo xam lu baax la ñuy wax moo xam lu bon la ñu waaye yow nefa rek waaye nag ba lay tudd daal nee buñ la dee saaga yi baax na Farba <laughs> <laughs> moom la jot na ci ba doyal <laughs> dégg nga ma gis nag système boobu la Thierno Bocoum def te neex na ci moom lool ndax maanaam tey jii su defoon discours pare toog comme ni ko Cheikh Ahmadou Bamba bi waxee ne mboolem militant nu mu tudd ASER wala. FMI ASIR waaw mboolem militant bu nekk ASIR. Mhm. na nga ko publier dix fois sax du tax population bi jot ci.